ngir xamale leen ak Bombardier ak adversaire am bi di Pudzianowski di polonais bi mu war a jàkkaar lool bu ci yàlla àndee le 20 mars 2021 li ñu mën a jàpp ci Pudzianowski moomu mi ngi juddu le 7 février 1977 ci benn dëkk bu ñuy wax rawaska foofu ci Pologne mi ngi toll ci 44 ans maanaam ñeent fukki at ak ñeent poids am toll ci téeméeri kilo ak fukk ak juróom-ñeent maanaam 119 kilos li ñu mën a jàpp ci taxawaayam mi ngi am taxawaayu 1 mètre 86. di nit kuy yëngu ci wàllu arts de force ba ñépp ràññee ko ci Pudzianowski mile def na boxe anglais amateur doon si takk ceinture vert ci Kyokushinkai ci noonu la dugg ci MMA ci weeru décembre 2009 premier combat mu jàmmarloo ceeg doomu Pologne bii di Maciej Nazjman mu dal di koy kaawo ci anam bu gaaw maanaam ci 44 secondes ci noonu lay dal di wëyal ay combat Pudzianowski mii li ñu mën a jàpp ci carrière am am na fukki komba ak ñeent am ci juróom ndam am ci ñeenti def défaite am ci benn combat ba nga xam ne sans décision la moom mi leen di Pudzianowski nekk na cinq fois champion du monde ci xeetu tàggat yaram bi ñuy wax l'haltérophile di xeetu tàggat yaram ba nga xam ne ku ëppale li nga yëkkati ci lu diis rek yaay daal di jël ndam li nekk na ci cinq fois vainqueur ci diggante atum 2002 jàpp 2008 kon Mario Pudzianowski mi nekkatul ku ñuy présenté ci wàllu tàggat yaram bii di MMA ndax def na ci fukki combat ak ñeent moom mi la moo war jàmmarloo ak Bombardier ñu naan la B52 de Mbour loolu le le 20 mars lay am fële ca Pologne bu ñu ñëwee ci champion bii di B52 ñu naan ko Bombardier noonee la ñu koy woowee ci làmb ji fii ci Sénégal wante turam dëgg moo di Serigne Ousmane ja Serigne Ousmane Dia moom lay juddu ci 1er octobre 1976 fii ci Mbour géej ci Sénégal moom tamit toll ci ñeent fukki at ak ñeent li ñu mën a jàpp ci poids téeméeri kilo ak juróom fukk lañ ci mën a jàpp Serigne Ousmane Dia moomu la ñu koy woowee Bombardier fii ci làmb ji mu jiite benn écrit bu nekk nekk fii ci mbur géej Bombardier dégg na roi des arènes ñaari yoon ci làmb ji bu njëkk bi mi ngi ko jëlee ci Mohamed Ndao Tyson ci le 25 décembre 2002 beneen bi mu daal di koy fuqartee ci Balla Gaye 2 le lion de Guédiawaye le 8 juin 2014 Serigne Ousmane Diagne ñu gën koo xam ci Bombardier ci noonu la daal di dugg ci sport bii ñuy wax MMA ci le 5 mai. 2018 premier combat mu jàkkaarloo ceeg Rocky Balboa am ci ndam fële la woon ca Genève ca Suisse deuxième combat ci wàllu MMA bi mi ngi am le premier mars 2020 ci la jàkkaarloog doomu anglais bi di Daniel Podmore dal di ciy amaat ndam fële la woon ca Londres ca Angleterre ancien roi des arènes bii di Serigne Dia Bombardier war a amal ñetteelu combat ci wàllu MMA le 20 mars 2021 fële ca Varsovie di capitalu poloñ jàngat bi ñu mën a def ci combat bi la nag mooy ñoom ñaar ñoom ñaar ñoo tolloo ay at. nag lii di taay yi ñu naan ko taxawaay tamit sorante wuñu wante ci wàllu poids tamit ñoom ñaar seen poids yi daanaka benn la wante li leen wuutale mooy lii di seeni palmarès ñu naan ko seeni jaar-jaar ndax Pologne bii di Pudzianowski li ñu mën a jàpp ci palmarèsam mu am fukki combat ak ñeent am ci ñeenti défaite am ci benn combat sans décision Bombardier nag li ñu mën a jàpp ci palmarèsam mooy ñaari combat rek la def ci MMA bi combat bi muy waaj a jongante mooy ñetteelu combat wante Olof Njaay dafa wax lu am solo garab ci kaw lay fekkante bu ñu xoolee Bombardier gisee at yi mu def ci arène sénégalaise bi méngoo na ak at yi nga xamante ne bii moom la Pologne bi def ci MMA bi kon mën nañoo jàpp ne ki mi yóbbulul dara Bombardier ci wàllu expérience ñu nar a gis combat bu metti wante nar gis combat bu neex ci ñaar ña nga xamante ne bii ñoo tolloo taxawaay ñoo tolloo âge wante ñoo tolloo li nga xamante ne bii mooy poids Sénégal yépp àndandoo di ñaanal seen doom ji di Bombardier yàlla may ko ndam ci digganteem ak Pudzianowski fële ca Pologne